jëm ci wàllu mbay mi ak rek industrie am ay njeexital ci suñu wàllu koom taux de croissance ba nag ñu jàppoon ko rek ci téeméer boo jël ñeent tombal juróom-ñett mu rek mujj yem ci ñeent ci atum 2022 ca loole nag ñu yokku ca rek ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ak juróom ci PIB bi nekk rek dette publique mu di nag mbir moo xam ni kilifa yi jéem nañ caa rek wut ay saafara ndax rek wàññi nañu dépense jëm ci wàllum investissement waaye nag 2023 bi ñu xaarandi rek ay coppite. yokkute ci koom ci réewum Sénégal ci atum 2023 bu fekkee nag production bi nga xam ne moo tukkee ci pétrole ak gaz loolee dina am jeexital ci atum 2023 ñu yaakaar ni tamit daal croissance bi dina jóge rek ci téeméer boo jël daal di yaa yokk ba juróom-ñett bu fekkee tamit nag production moom tàmbali na ci atum 2024 waaye jamono ji nag ñi ngi estimer croissance bi daal ci téeméer boo jël rek juróom di tombal ñett daan biti réew tax rek ba njëg yu yokk lool loolee nag am jeexital bu baax ci wàllum inflation bi fi mu toll nii nag nekk na mbir moo xam ni ña ngi koy saytu daanu gën a dëgëral itam li nga xam ne moo fi nekk ak tamit wàllum assainissement ci public yi la maanaam yaxanal li nga xam ne mooy euh, kopparu askan wi mu gën a dimbali ci wàllum inflation bi de ndax inflation bi nag téeméer boo jël jël na daal ci juróom waaye ñu ngi koy yaakaar rek fexe ba gën koo yóbbu téeméer boo jël mu nekk ci ñett. ci loolee nag la rek programme économique et financier bu Sénégal bi nga xam ni FMI moo ko taxawal dugg si loolee nag di ànd ak ab saytu bu mucc ayib ngir rek am yokkute ci wàllu koom gi. naka la ñuy renforcer wàllum résilience li nga xam ne kat moom la kopparu askan bi waaye tamit fexe ba gën a yaxanal tamit wàllum gouvernance bi lee ak tamit indi ci ay leeral waaye tamit teg ay coppite yi nga xam ne dafa delluwaat ci gën a buux li nga xam ne mooy wàllum croissance bi rawatina ci secteur privé bi ginnaaw mbasum covid 19 ak rek xeex ba am ca Ukraine ñenn ñi jàpp ni crise bancaire ba nekk ca États-Unis mën na rek am ay njeexital yu bon ci suñu wàllu koom ki nga xam ne nag mooy chef de mission bu FMI di dalal xel ni loolee du am benn njeexital bu bon ci suñu koomu réew